mais dama boo xam booy attaqué loi donc ngay attaqué pour anticonstitutionnalité ci loolu la mais le président de la république a le pouvoir par le moyen d'un projet de loi de faire voter une amnistie loolu constitution bi ko may da ngay perte sa temps boo fa demee conseil conseil li ngeen koy reproché naan je suis incompétent loolu leen di wax je suis incompétent la leen di wax <laughs> leneen loolu leen di wax. <laughs> asalaamaaleykum. Mame Medina TV Nouvelle Vision 221 chargé communication ndaw ndakaaru kon maa ngi sa biir njaboot. tey ki may posé question mooy grand serigne de Dakar. ki nga xam ne moom la yàlla teg mu nekk ci boppu ndakaaru fan yi ndakaaru yëngatu ñu bëggoon xam sa taxawaay sa kàddu ci ndakaaru ak kàddu gi nga xam ne moom nga war a wax sa njaboot ci ndakaaru lan lay doon ñu profité pour dégg ko fii ñaareel bi. mu am benn plateau tele bu am mu am ko attaqué Ndakaaru mu ne lébu yi jubawuñu seen biir te ku xam lébu xam ne mbokk ko gënal li mu am yow en tant que grand seigneur de ndakaar te nga ilif Ndakaaru te nga xam ne Ndakaaru mooy bopp Sénégal bu yëngatoo dëkk bi yëpp yëngatu tey sa taxawaay ak sa waxaay lan la si ñàkk juboo boobu ñu ñi di wax yow tey lan moo ci sa kàddu waaw jërëjëf xam nga man li may wax man man Ablaye Makhtar kuy jàpp jaan doo faale jiit dégg nga li ku doon wax ci télévision bay xas Lébu demal nga ne ko Abdoulaye Mar Sané ne kuy jàpp jaan yeew doo faale jiit bi ci des yaa ne ndaw ndakaaru ngeen bokk ñu dellu lépp ne su fekkee ne golo mun naa yéeg ngembal baayam dafa takk ca garab na ko wone dégg nga suñu attaqué ay kilifa yu ban dégguma ko parce parce que fii réew mi toll tal naa leneen yéen ngeen déggoo ko di ndaw ndakaaru dañu ne golo su fekkee mën naa yéeg guy ngembal baayam tag na ko yegg yi yéen tontu leen ñooñu loolu yëngalul ndakaaru ñàkk jubóowu ndakaaru loolu bu fekkee ne mag Pape Diagne lu ñu dépassé la yéen ñëpp seede ngeen ko moo ko wax pale di ko dox di ko wax ci biir loolu nag mun nañoo dox dox ba mbir am kenn ku nekk am loo xalaatee moo tax man dew ma woon dialogue ba te moom mu nga fa woon mu ngi nii toog chef de pénc la moom laay jël seede moo mag ci jotaay bi fii la ñu réunion alxames mu ne ma gisuma la ca dialogue ba ma ne ko dew ma parce que ànduma ci ni mu tëddee waxuma la nii Babacar Mbengue mu ne ma dew ma ma ne dew ma parce que ànduma ci ni mu tëddee Sanu Mbengue mu ngi ni toog chef de penc la ma ne ko dew ma ànduma ci li mu tëdd parce que dama jàpp ne sooy dialogué ci circonstance yi Sénégal tollu ba ma déggee ne ñu ngay woote dialogue boo jox ma sama carte sama yéene moo doon dem ci ngoon gi ñu ne 19 candidats yi 17 yi ñu ne duñu dem loo fay def ñu xëy ñu def communiqué ñu ne Sidiki Kaba nee na ak Ablaye Sow ne candidats yi dañuy dem président di leen recevoir ma ne bu boobaa dinaa dem. demuñu mais soo fay dem loo fay def yéen ñi taxaw tey soo demoon seen dialogue soo lay wooyee da ngeen ñëw fii da nga naan ànd nga ci lañu fa def parce que nit dafay moom boppam xam lañ ko dénk ak ñi ma ko séqal ñàkk faa dem du xuloog Macky du contre Macky Sall natt fa may dem faman fan la dafa bokk ci li may def mu ngi noonu jërëjëf. ñaareelu kàddu bi mooy. tey ñu ngi jëm ci ay campagne tey leen ngay dënk waa Ndakaaru. non xam nga li may dënk waa Ndakaaru wax. ci jàmm ji. waaw moom laa li nga dénk waa Ndakaaru wax naa ko xam nga.